salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di ma ñëwaat pour andi benn précision rek sama gars yi ngir yàlla bu leen dugg si si si si si si jeu bu waa jooju jaañ quoi. démb Ousmane Sonko dee libre tey ñu naan non non Ousmane Sonko dina génn avant minuit ñun wuñu si loolu ah concentré wu leen si campagne mu nekkee dafa bëgg dagg seen tànk damm seen i tànk concentré wu leen. concentré le rythme bi la bëgg a lii rythme bi ah génn Ousmane Sonko yow laa say informé kañ la la affaire Ousmane Sonko soxal ba nga nekk publier kañ la la soxlay Ousmane Sonko yëf fi Ousmane Sonko soxal ba nga nekk publier nekk leen ay nit ah te nga bàyyi nga nga ngaan Ousmane Sonko wante ñu sonal waaye damaa ñëwaat rek voilà. maa ngi ñëwaat si yow pareeguma si yow lii nii sax gàcce la ko